di la fay bu baax a baax a baax a baax di la delloo sa wàccuwaay xam nga man mm-hmm. yow li tax ma sawar di def ak mm-hmm. sa yaru ak sa maandu ak sa xol wu nit ki sa ndey mën na génn àddina sa baay génn àddina mais ñaanam moo lay topp. seeni ñaan yow moo la topp. moo tax xoolal tey foo tourné tey foo tourné TikTok sa sa vidéo ngay gis lu war a lool ak maandu ak tey sa lamin mm-hmm. tey sama kër su ma neexee def fa lu te xam naa ne yow ba ma ñëwee jël si sama diggante maa yow la yem. moo tax nga dal moo tax lii nga am nga am ko. di la nuyu di baalu àq yow parce que sama xarit nga. di la baalu àq ku baax nga sa liggéey bi di nga ci gis lu kawe kawe parce que sax yaa ngi koy koy gis nii. Mhm. parce que ku dal nga ku gore nga ku xam àddina nga. yàlla na yàlla def jàmm alaaji guy gi mu sell mi. am na solo ah, moom moo baax rek parce que Pawlish aw sens interdit ci këram ah damay fekk këram mu def puisamment sama yeeg waxtaan ak moom Pawlish damay. lu ma neex laa fay def ah. donc maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax Liss ñu fas yéene waxtaan ci actualité ak tolluwaay réew mi ñu gis fan yi ay vidéo yoo xamante ne mu ngi fiyu de ki nga xam ne moo di sa xarit Adamo di xamle que ni carrément da gën génnoon def benn vidéo bu fiwutee Omaro daf ko dóor ba gaañ ko par rapport ak euh, dóor yooyu noonu naka nga ko jàngatee <laughs> waaw mais jàngatuma ko dara xool yee jug rek ku ne seen neex tàng Omar xam naa ni xolam jug na Ada xolam jug na day bëj ñëw ñu ñu laale man antaan yi am waaye heureusement bañ am nañ matière boo xam ne am nañ xel moo xam ne am nañ mental boo xam ne tey ñu dem ba toog ñoom ñëpp xam ne li ñu def tey ci heure am nañ ñu ne c'est la famille man mii tamit di ndey bi liggéey di bokk ci ñoom amul lu amul leneen lu war a def lu dul c'est la famille famille laa ko mën a jàppe parce que ay famille lañ famille day xeex famille day juboo famille day def lépp c'est la famille rek laa ci mën a wax. mais ndax tey jàppante bi yoon la woon. waaw famille famille jàppante te ay famille lañ famille bu ñu àdd di nga jàppante yaay ak doom dañuy jàppante te famille la papa doom dañuy jàppante famille la kon tey bu ñu ba jàppante nañ ko jàppee c'est la famille c'est la famille la kii dóor nee na c'est la kii dóor nee na c'est la ñun ñi di wax ci micro yi dañu war a wax loolu lu c'est la famille kon c'est la la mais est que jotul tamit tey Adamo ñu reconnaître ko xam carrément que ni moom euh, buy dugg ci waal yi yéen a lay duggee ci waal yi ndax ku ne xam na Europe jot amul ñëpp seen liggéey lañ nekk mais dañu gis à chaque fois Adamo foo ko fekk waal jaral na ko xuloo jaral na ko xeex donc tey est ñoom jotul ñu reconnaître ko xam ne lu baax la leen bëggal. waaw boo gisee ni mu waxee rek nga xam ne cofeel la waxee bëggeel la waxee. Mm-hmm. gisee ko aada aada kenn du ko kenn ko saaga nekk ci jàmm tey bu ñu dee ba lépp ci jàmm cofeet gi am ci waali ak bëgg gi am ci waali ak yërmande gi am ci waali ñoom it ki dóoree bëgg ci waali cofeel ak yërmande ñiy àtte cofeel ak yërmande ñiy seetaan cofeel ñiy yërmande ñiy xool ci internet bi cofeel yërmande ko yërmande rek ma faral dugg ñu wax ñu yërëm ko xam ne dafa bëgg waali xam ne dafa fonk waali xam ne ni waali la bëgg ci àddinaam baari rek la fangu ci àddinaam waale ko gën a lu mu ci àddinaam muy nekk nit ku baax fu waale tëgg day dem fu waale woote day dem ci àddinaam nga xam ne lu bëgg la ak yërmande ak fonk nit nañ a jot famille la famille lu ma ci wax leneen saytaane la wala naafeq nañ ko jàppee c'est la famille ok ñu gis waale tamit def geste bu nice parce que gis nañ vidéo yi diggante waale ak ki nga xamante ni moo di soxna Adamo mhm. waale def geste bu grand affaire ah, parce que ñëpp franchement collaboration bi nga xam ne am na ko ba photo ak jabaram aussi tamit. Wally Wally romb na loolu Wally kilifa la romb na loolu. Wally mag loolu romb jabar bañ ko nuyu Wally romb na loolu Wally mag te yoon la mu nuyu ko parce que xaritam la kii koy guddeel la kii koy bëccëgal la. ñàkkoo koo gis rek moo ko teewoon kottu ñàkk koo seen moo ko teewoon kottu bu ko bis bi fekkoon pare waale day dem ci takk ba parce que xam naa ni aadama mel ci xam na ni waale mel ci ñi ciy wax ñoo xamul rek wala ñi ciy def lu ñaaw ñoo xamul diggante waale aadama moom burug suukar la bëgg la cofeel la aadama ko baax la waale ko baax la ñeneen war ñu baax lañ maa gis Baye Sall maa ngi koy saluer li mu def rafet na. parce que aussi tamit kaddu ak ñëpp dañoo war am njaboot ñun ñëpp dañuy am njaboot sut la ku nekk tey war ngaa ah, sa famille ak say doom ak say waajur. Mhm. lii yëpp affaire àdduna lii yëpp day jeex. du dëgg mhm. man l'essentiel c'est-à-dire benn wax laa ci wax du ma seytaane du ma ñàkk wa fayda du ma forcé kenn ko duguma ci dara njëkk li li ma waxoon daaw laay wax ren li ma waxoon ren la wax ren noonu laa mel ci àddina mhm. waaye ko baax la adama ko baax la kese mhm. mënu ma ci wax leneen ci àdduna muy c'est la famille bàyyi saal def rafet bàyyi saal def yëfi grandeur woo leen ñoom ñëpp ne leen c'est la famille ñoom ñi dem ba ne c'est famille képp ku ci wax wax ju ñaaw bokkoo ci famille bi kon lépp nañ ko wax ni c'est la famille la lépp famille la. Mhm. kese. Mhm. mais est tamit jotul comme yaa ngi wax c'est la famille. aussi tamit est tey euh, jotul tamit mu gën a defaraat toogaayam par ak yenn kàddu yi mu doon wax donte waxi bëgg la aussi tamit xam ni sotti ceeg def si la ñoom ñëpp li leen tax a jug rek muy Adama muy yow muy keneen ak keneen lenn dong moo leen tax a jug muy defaral waali wala waxal waali lu baax. waaw mais parce que parce que nit ki buy wax xam nañ li war a wax a parce que lu baax ak jublu waaye duñ ko defal lu bon ko xalaat ci lu mhm. parce que mun wax lu baax amaana bés ñu wax mhm. wax la kese te àddina loo gis famille la dem nañ ba famille bi boolewaat nekkaat ci jàmm. Mhm. kon nañ ko def c'est kese la. d'accord famille rek la famille par rapport a maam di wax lu ma xam. d'accord par rapport ak concert bi Wally def démb. Euh, ci biir donte ay nasaraan la ko doon woyal mais ñu gis ci ay son yoo xamante ni mu ngi fuité mu ci woy yaayam courage bi parce que tey ñu bëri yaakaaru nañ ne premier concert Wally daanaka du ko yeggali ndax tuuri xéewal mais dañu gis courage bi ak matière bi mu am aussi ba réussir li nga xamante ne mooy événement boobu. waaw Wally Wally biy jooy moom fii lay jooyee moom wax la ba gis bu demee tey ba ki doon ko génn buy génn ki doon ko ñaanal ah. Mhm. ki doon ko dooleel ki doon ko encouragé. buy mhm. dem ne aloo yaay maa ngi yaay ji ñaanal ko. Mhm. boo tëggee pare ne yaay pare naa. loolu dina jooy fii faari fii la dana jooyee mhm. fii lay jooyee nag normal te day jooy mhm. incha allah d'accord ah, bu bu bu lii bi amee mhm. bu ah, anniversaire am bu amee bu dee day am bu amee loolu premier soir am dina jooy nag sérieusement dina jooy moom parce que ki lay ki lay dimbali dinaan la jaaral fii ñaanal naa la sama doom nga jël sa téléphone romb sa romb resu fi fi doon sa yaay doon taxaw mhm. bala nga faa si jaar fa mu ñaanal la nga dem mhm. booy génn sa kër di ko direct foofu mhm. non jooy dina am te dina jooy incha allah fii laa nar a jooyee mënoon fexe ba du jooy day jooy moom nit amul màkkaam ba ba du jooy dina jooy dina jooy jooyu mbégte dina jooy jooy li ko yaay manqué dina jooy jooy xol dina jooy jooy boo xam ne ñàkk naa sama yaay ki doon ma ñaanal su ma doon génn ki doon ma wax foo dem foo jublu yàlla na fi yàlla jublu bu soirée bi jeexee jaaga pare naa bu ko gisatul dina jooy te day jooy incha allah dina jooy bu jooyee nañ ko comprendre nga xam ne dafa war a jooy c'est normal mu jooy man mhm. bu jooyee dinaa jooy wala keneen keneen dina jooy parce que la mhm. nit ki ko bëggee bu jooyee di nga jooy bu retaanee nga jooy mhm. kon il mu jooy day jooy moom loolu du ñàkk moom mais jooy moom day am moom pleurer moom day am euh, euh, ma ci benn vidéo boo xamante ne mu ngi fi doon fi wute fan yee mu di Aminata mu nekk famille sénégalaise ma koy nuyu bu baax a baax damaa bett moom mel ni soo xam noonu la bettee. kon ñoom li ñu wax tamit séeri la. waaw man de sànq laa gis vidéo yi. xamal que ni est-ce que guy gi séeri la waaw mu ngi ñu ma jàkkaarloo waaw séeri la maa ko seetaan ba mu jeex. mais Amina tamit ñuy tourné séeri ak ni ak ni ak ni ween mel ak ni doom mel. Mhm. nit ki. téeméer téeméer vidéo di ko vidéo sa say weel di ko dugal ci àddinaam di ko dugal ba ñëpp gis ba ñëpp mer man mer meroon naa ci nga xam ne jigéen danga koy maan jigéen danga koy jox li mu doon jigéen danga koy jox niveau bu mu am jigéen danga koy jox qualité am tey nga bëgg film bi am buzz barki yonent bi du am buzz billaahi wallaahi film bi du am buzz lii pour lan la pour bëgg a siiw pour lan la mais par rapport ak fi Amina toll nga xamante ne tey dem na ba ñëpp xam ko famille sénégalaise ndax yaakaaroon nga ne tey scénario wala bad buzz jaroon na lii. ñi koy jël scénario moom wa na loolu parce que Amina bu génne ñëpp ko xam ci àddina ñëpp ko xam am na ñu koy ñaawlu ñoo xam ne neexu leen am na ñoo xam ne bëgguñu lii mu def li ko góor ki def neexu leen bañ yi wax lu rëy rëy man mi wax naa ci lu rëy rëy lu ne wax naa ko ci àdduna ka te Amina day def bad buzz lii lii lii du buzz lii ñaawal sa tur la

say ween du tas ci àddina voilà surtout parce que gis nañ ay cëram génn tamit. ci cëram génn foo tàppe foo tàppe ween da ngay gis weenam foo tàppe ween ci àddina yi ay weenam parce que yow miy nàmpal say doom téye sa doom nit vidéo ko dugal ko lan moo gën a ñaaw loolu. Mhm. ndax buzz luy luy luy télé lan mooy buzz fii la boo xam ne ne xam ñaan la leen fay ay cent soixante quinze mille lan leen di fay ak ay ay ay deux cent mille léegi sa sa tur dem ci sa lépp dem ci nit ñi di ci wax say ween sa lépp dem ci loolu ban sens am. ndax télé télé ndax télé yi nga xam ne xale yi jigéen ñi non mais ban sens am léegi xëy daal filmé dañ ko xale yi filmé daal danoo jàppee filmé pour noonu lañ ko jàppe ñoom dèjà ñoom mais loolu li solu mooy tax tey ñuy def li nga xamante ne mooy yenn buzz yi parce que jigéen euh, yàllaa ko suturaal jigéen bu demee tey bay def ay ay buzz teel amatul valeur jigéen bu demee bay def buzz di wane say awra euh, pour mën a réussir ci sa théâtre ndax loolu tey jii euh, film jar na ko la ilaha illallah kuy ko ubbil ma foofu la ilaha illallah li li bëgg li bëgg lig si jaru ko wee teet teet teet allahu akbar kabira bisimilah ay jë ñuy waat ah ndax tey ndax ndax ndax ndax ndax tey pour jaay produit euh, tey egg na foo xamante ni ku ci mel ni Amina ak fi mu toll ci réew mi war naa génnee ay ay cëram ëllëg ay njabootam te mu nekk ci bu mu sëy di ko seetaan xaw ma Amina xaw ma maa ngi rey sama bopp guy fii ma nekk dafa tàng de te te maa toog ci cat lii ndax ma am air. wéé oto bi tàng na. Hmm, nga ni. Euh, ndax tey buzz. wala tey pour jaay sa produit. waaw euh, jar na lii nii mu def tey. waaw Amina te man dama koy semé woon parce que li mu jiyee dafa neex lii nii lii mu def lii jar ko bu dee buzz la wala bu dee pour kii la lii mu def loolu jar ko ci àddinaam nit ñaa ngi wut buzz paax ci lii téye sa doom. di ko nampal nit vidéo ko dugal ko fépp ba coow li am di sama doom la maam moom ñoo doon nekk wax ju ñaaw ju jub ci tey nga génn tey bés tey ñëw nga naan bat bés da est-ce que bat bés da waaw kuy gi xoolal. gis naa bu ma dugal bu wax la loo xam ne. du bat bés mu ngi nii ma jàkkaar lool di ko seetaan. barki yonenti yàlla Muhammad ah def na lu ñaaw de. Hmm, lu ñaaw de. lan nga moo waral lii. bëgg siiw rek xale yi léegi bëgg nañu siiw eh, télé ñàkk na valeur. film xale yëpp ay film léegi théâtre xale yëpp ay jee théâtre ci àddina mhm. léegi amul dëkk bépp ay star lañ léegi koo gis na ay star la ki gën te xale yi bu ñu génnee télé dañuy changé seen i di changé seeni i di changé seeni i lekk di changé seeni i solin xam mhm. nañ seen kër yaay dina jël appartement bëgg wut oto léegi loolu te film fayee ko cent vingt mille lan leen di fay par tournage séquence te film yëpp benn séquence la ñuy jël. te bala ngaa tourné bala ngaa tourné day yàgg bu bëgg a jël appartement bëgg a takk seen or bëgg a yor iPhone 15 yor oto bu rafet rafet bëgg a dëkk ci chambre bëgg a yor sa bopp bëgg yor sa yaay bu dee dañuy yor seeni yaay bëgg a yor seeni far bëgg a jënd ay volet bëgg a jënd ay suus bëgg a jënd ay trap bëgg a dund luxe di dem Dubaay di ñëw te film mayewul loolu. xale yi nag nañ xoolaat seen bopp. surtout nañ xoolaat ñoom ñooy kan. Mhm. nañ xoolaat jigéen taaram yàggul lii ñu nekkee ci internet bi Sénégal lañ leen xamee. tubaab bi xamuñu leen français yi xamuñu leen ñun sénégalais rek ñoo leen xam te ñun sénégalais yi dañ lay xam weer bàyyi la léegi soo bëggee dund luxe boobu bëgg a jël appartement bëgg a jouer film ñu lay fay cent vingt mille par séquence bëgg a dund léegi xale yi li ñuy jouer yëpp ci tele bi jouer wutuñu aaraate jouer wutuñu yeddaate jouer wutuñu pour lii yedd la xale yi seen film jàpp na ni porno la sol seen i slip ci piscine di def fi saay-saay di fóonante di def fi bee léegi xale yi seetaan théâtre yëpp wala seetaan film yëpp film ba xam nga kañ la yàqu ba Golbert Diagne gaañoo te film yàqu. ba Alaaji Mansour ba Alaaji Mansour bàyyee film théâtre xam nga Alaaji Mansour mbay de am na Alaaji Mansour te mu dëkk Ndar. Sanekh da doon ci normal ba tey mi koy joué. mais xoola xale yi jeunesse bi génn léegi. waaw daanaka seen profil rek lañuy. seen i profil la ñuy jaay. Mhm. def siri bu neen wala seen i dënn di xale yi di ko seetaan di ko te xale yi dañ leen di seetaan xale yi seetaan film yëpp jàpp leen li nekk ci film yi mu nekk ci télé bi. Mhm. bëgg a jël appartement bu rafet rafet bëgg a dund luxe. Mhm. te amuñu luñ ko fayee dañuy nekk si jaay seen bopp la ñuy nekkee nekkee ci dëkk bi di voler di suus bu bu ñu dem maye bu Siri ñu dem jël appartement nekk lobby te ñoom bi oto da nga fexe oto te xamoo noo koy amee te noo koy amee seen théâtre fayu leen loolu. d'accord ndax xale yi arrière. par nekk ci benn point boo xamante ni ndax tey xale yi duñ jël exemple ci ku ci mel ni tey mën naa jël ci sumbulu rek ah comme ñoom ñoo tolloo génération. parce que gis nañ ko mu ngi def ay yére di jaay. di def ay live di jaay toog biir këram te tey mën naa ne xale yu bari moo leen ëpp succès mais par rapport ak tey yeneen xale yi comme ni ñu bëgg a dundee aar bi est ce que xool ci ñooñu. jàpp na ni jàpp nañ télé mhm. mhm. ñu gis leen. te jàpp na ñoom ñoom jàpp na ni li tëdd bii ñuy tëdd jàpp na ni 1 million déedéet ñoom ñooy nax seen bopp ñoom te xale ci ci film yëpp a feebar barki ñoom ñëpp a xaaj bépp bay fay sa doo tëdd doo tëdd mënoo bëgg oto te doo tëdd mënoo bëgg a dem Dubaay te doo tëdd góor du la jàpp yóbbu la Dubaay rek ne la jëndal la ay kii bàyyi la nga ñibbisi amul ku la ne am na nee ko da ngay amul fenn ku la yóbbu Dubaay weer di la tëddee weer jën la juróomi parfum kees te Dubaay gën a yomb parfum ci àddina kees parfum la yóbbu mu dikkee la cinq la ci dix pack yu jëndal la avion te du la jëndal yooyu la lay jëlal nga dugg ga foog ne rey nga gaynde te reyoo gaynde gi sew sa taata rey gaynde gi xale yëpp ñoom ñëpp a feebar ku la ci gën a bu ku la gën a rafet taar barke sax moo la ci gën a xasaw moo la ci gën a tilim moo la ci gën a forox parce que jàpp na ne seen lii mooy jaay ci àddina te nag nit sa sa lépp a war a set ci àddina xale yi see théâtre billaahi xaaj bépp a feebar ñi ci xaaj bu bëree feebar parce que jàpp na ni war nañoo fay ci appartement déjà oto bu rafet xale yi duñ jël teg ci ne oto bu rafet la ñuy dawal oto bu rafet lay jël ci appartement def salle bi kilim néeg bi clim ba nga jënd seen i dàll jënd seen i yére fan lañ koy jëlee. théâtre daa mën a fay loolu. théâtre fayul loolu. Mhm. moo tax xale yi dinañ gën a chômer ñi leen doon may wàcc nañ mhm. ñi leen doon yóbbu ay Dubaay wàcc nañ ñi leen doon dimbale wàcc nañ léegi nag seen lépp yomb. ñu doon jaayee un million dañ koy jaaye fukki fukki junni parce que ñi doon doon may un million léegi ñëpp ay tolloo moo tax nguuru jomaay bii defar na lu bare bari nguuru jomaay bi defoon na lu bëree bëri. déggoo man la ministre defoon na lu bëree bëri. non man doo mbër sax loolu koy lay làmb bi man ay làmbaloog man sama yoon ko ci ay làmb bu ko tuddee def leen lu ne mais nguuru jomaay bi dimbali na ñu bëree bëri xale yi doon dem Dubaay seen Dubaay dina wàññeeku ñi leen doon yóbbu dootu ñu leen yóbbu di léegi ñu doon jaay un million kenn jaay un million du amati de fukki junni fukki juróom fukki fukki junni ak benn mooy am wala fukki junni ñaar ay ci li ñëppay tolloole ñi am dinañ dinañ nekk ci ñu rafet ñi ñàkk dinañ nekk ci ñu rafet damaa bëgg xam ne xale yi lii du woy lii ñu def ni du woy nañu nañu reculer à terre xam ne lii ñu nekkee ci tele yi du dëgg du yoon mënuñoo jëy film laax li leen di fay séquence soixante quinze mille bëgg cee jël appartement bëgg cee dawal cin oto bëgg cee loolu du logique nañu xam ne dañ dimbali reculer di xool ceen bopp ni xam ne ay jigéen lañ taadu jigéen du yàggul taadu tele du dara télé bii du dara lii du dara inter xale yëpp ci internet du dara ñu nekk ci tiktok bi tamit du nañu xam ne àdd ndég xale sax léegi day wax seen yaay sax nan nañ yaay ci kanam seen yaay ànd ñoom ci li ñu nekk xam lu tax ñu ànd ak ñoom ci li ñu nekk mais xam na ni seen doom yi fu dafay appartement jël oto ñu ngi fay tëdd lu leen neexee seen yaay mënuñoo wax mënuñoo yuux mënuñoo def parce que xam ne ñoo leen di dimbali su leen bàyyee waaye yaay tamit da war a yar doomam fi ko war a yaree hmm. xamal ko fi nga ko war a nga xam ne alal du dara hmm. des fois nga jox sa yaay xaalis bu lewut nga xam ne yow mii foo jëlee un million liggéeyoo ko lenn tëdd nga ko joxe jox ko sa yaay. Mhm. pour mu dépasse ko nga xamoon xaalis boo ko lekkee lan la. Mhm. xanaa xale yi xam lii ñu nekkee ci dëkk bi du yoon du yoon. Mhm. man nag dama leen di conseil en tant que waaye conseil bu dëgër laa ne conseil te li ma wax xam na ko xam ne li ma leen wax te dofuñu xam ne li ma leen wax lii ñu cent vingt cinq mille mënut a fay appartement. mënut a kër ligg appartement clim saa clim ba bëgg a bëgg a fay bon. bëgg a tëdd 15 heures bëgg a fay 15 heures bëgg a tëdd 15 heures jënd plate. 3000 ci joojo 6000. 6000 3000 ñu jaay la ñu livré ko tey guddi ki di nga yàq 10000 bëgg jënd sa suus sa trap te xale yi yu bëri ñu bëgg a jënd oris parce mi ngi jar 1100 nga bëgg jënd oris bëgg a jënd oris bëgg koo toog ba pare bëgg a naan ay jus te du naan ay jus boisson ay lisa ay kii jus naturel la ñuy naan mi ngi jar 2200 nga bëgg ko jënd sa frigo bëgg jënd xar bëgg a jënd yàpp saaf mi ngi jar 10000 nga bëgg sa jënd 4 kilos. de théâtre maye ko te dina ko ma a maye te ñu doon maye un million wàññeeku nañ xa di nga gis xale yu bëri perte wàññeeku normal wàññeeku normal nguuru jomaay bi liggéey lañ woote xale yi doon def lépp ñi leen doon yóbbu Dubaay ak ñi leen doon yóbbu Chine ak loolu lépp day dakk leen doon yóbbu dootu ñu leen yóbbu parce que jàpp leen bu leen yóbbu duñ jàpp leen léegi nag yéen a mën a reculer xam ni lu bon du wëy lu baax rek ci àddina lu bon dootu du wéy de lu boy du du wéy léegi li war na leen yee nga xam ni ku doon def lu bon tey lu baax rek ngay mujj ci àddina ndax ay reculer te fi ma nekk guy gi nag nit kese laa te mm. ku def si say xatin mawti ku def si say xatin mawti guy gi fi ma nekk tàng naa te jarul yenn ni wala bëgg nit ñi xam ma fi ma nekk tàng na lool na guy gi dimba mi ngi yàlla émission bi jeex fii ma ko itamaay faare tàng na lool ma coupé la ilaha illallah jërë ngeen jëf mbokk yi ma ni ko tàngoon loolu loolu <laughs> waaw penn guy gi <laughs> lii moom nag moo ay wax jaru ko wala bëgg lu ma neex wala bëgg lu neex Sénégalais yi te fayu ñu ma jënd luñu ma connexion bëgguñu ma man dama bëgg lu leen neex ne di wax wax yoo xam ne xaw ma ko li wax sax xaw ma ko maa ngi déliré rek waaw dimbali ma ngi nga coupé la ilaha illallah succès jarul lii wala bëgg bëgg nit ñi ki reetaan kenn fayu ma li ma ni tàng na coupé coupé coupé